أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المبعوث بالحق رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا وقدوتنا وشفيعنا الشيخ عبد الله وخديم رسوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ngi nuyoo bu baax a baax ak ziar kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi yëpp di tàmbalee ci nuyoo yi ak ziar yi boroom dëkk bi di cheikh alxalifa sëriñ Muhammadul Muntaqa ñaan suñu boroom yàggal ko fi lool te wéeral ko ba mu yàggale naalam yépp yi mu naalal sëriñ bi ba tàmbaliwaat yeneen te ànd ko murid yépp ci barkeb sëriñ bi di xëy na am luy nuru ngànt sax ci wax ci jataay bii lii ñu fi wax lool ndax jataay bi ak war ma dim àndal ak ak yi ci daje yépp rek waaye itam ngant loolu di xaw a woyof ci bu ñu seetee ne lii ñu ñu di waxloo tamit daanaka dafa wër doomu aadama bi ci dundam gépp muy lu jëm ci am koom ak finance loolu daanaka nit ki néew na lu muy def lu ko génn te la muy def mu nuru lu ko génn sax yii dañ koy gën a mottali masalan bu ñuy wax ci économie di ko waxe fii dina xaw a niru lu lu lu nekkut ci place am waaye buñ seetloo ne économie daa xaw a doon loo xam ni daa wër dundu doomu adama bi ci wàllu yépp ci wàllu social ci wàllu diine ci wàllu wér-gi-yaramam ci wàllu yu bare bari nit ki ngir lii ñuy xiirtal jullit bi di ko ko def loo ci li jëm ci social moo xam farax la moo xam lu mën a doon ba ci sax azaka day am lu koy jiitu te loolu di ko jiitu mooy mooy am koom koom moomu kon xool ko saytu ko di koy saytu ak di ko waxtaane loolu yaakaar naa ne day dugg rek ba léegi ci biir li ñuy li ñuy def ñun ñëpp muy diine nit ki noonu itam suñu wér-gu-yaram ñun ñëpp sax xam nañ ne ci suñu réew yi ñu toll lu ci baree bari daa aju ci am koom ak mi ngoog li li li tax ci moom loolu itam day tax bu boobaa itam waxtaane ko day niru lu yell waaye moom ci boppam sax am koom boo ko seetloo ak li muy jàngat lépp rek da ngay gis ne day nekk loo xam ne lu mënta ñàkk la ci diine bu dul sax moom ci boppam ak jaamu yàlla itam day doon lu ci mënta ñàkk ndax bu ñu bu bu fekkee ne ñu gëstu ci wàllu googu ñu gëstu ci wàllu économie ñoom ni ñu koy xamlee dañuy wax ne yëngutub doomu aadama la boo xam ne li ko tax a jóg mooy naka la ñuy fexe ba defar dara lu mën a doon rek ab bien bu mën a doon. loola itam buñ ko defaree naka la ñuy fexe ba tasaare ko ba nit ñi jot ci kenn ku nekk mu fekk la fa nga nekk buñ fexee ba nit ñi jot ci tamit liy jàngat. li jàngat loolu laa bëgg a wax li jàngat nu ñuy defaree dara ak bu ñu ko defaree nu ñu koy tasaaree bu ñu ko tasaaree nu ñu koy yaxantoo di di ko jënd ka jaay ba buñ ba ni ñu koy consommé ni ñu koy jëfandikoo loolu dafa am li koy jàngat xam-xam boobu defarin wa nag leneen la waaye li koy jàngat loolu mooy mooy économie noonu lañ koy noonu lañ koy xamlee loolu nag boo xoolee lii ñaari ñaari ñaari ponk rek lay séddalikoo mooy liggéey ak jëfandikoo ndax defar mbir jàngat nuñ koy defare nuñ koy tasaare ba mu yegg ci nit ñi nuñ ci nuñ koy jëndeeg nuñ koy jaayee loolu mooy mooy liggéey moom partie bu mujj bi nag muy consommation mooy jëfandiku te liggéey ak jëfandiku itam ñaar la ñaari wàll la ñoo xam ne diine ji da ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax diine ji dañoo tënk ci ñu jëfandikoo masalan lu dagana jëfandikoo kon jàngat loolu day doon loo xam ne lu mënta ñàkk la ci suñu diine diine ji dem dañoo soññ ñaax ñu lool ci liggéey ba liggéey xaw a doon sax jaamu yàlla moom ci boppam defe naa ne itam loolu ñaar yooyu kon day doon loo xam ni li liy jàngat loolu waxtaane ko ci barab yu mel nii ak ci jataay yu mel nii ci weer wu mel nii day mujj doon lu mënta ñàkk day mujj doon farata li tax loolu itam mooy suñu borom da ko soññee bu baax a baax ndax damay wax ni liggéey masalan day mën nañoo jàpp ne mooy anam bi gën a ñoŋ bi gën a mucc ayib ci jëfandikoo lu dagan liggéey ci fàggu lu dagan mooy anam bi ci gën a mucc ayib am lu dagan defe naa sëriñ bi ci lu bare bari ci am bindam da koy wooye alkasbul xalaal mu liggéey ci boppam kon day wane ne moyen la bu gaaw boo xam ne mooy bi jàpp nañ ne bi gën a ñoŋ ci fàggu lu dagan donte am na yeneen i fàgguwin nag man masalan mën nañoo may nit ki mën nañ koo sarax yooyu yëpp suñu tudd na ko ci majmuwa yi waaye liggéey moom mooy bi ci jiit te moom la ci njëkk moom la ci faral di jiital sax te fàggu lu dagan loolu itam daa doonaat loo xam ne mënta ñàkk ci ak jaamu yàlla ndax yàgg nañ ci jàpp ne bu fàgguñ bi baaxul jaamu yàlla gi mënta baax kon day mel ne fàggu lu dagan day mujj doon ab ponk ci ponk jaamu yàlla yi loo xam ne mënta ñàkk jaamu yàlla la nga xam ne ki koy def day jaamu yàlla ci def gi mu koy def te ñàkk gee def day jombal ñàkk jëfandikoo lu daganut te jëfandikoo lu daganut day yàq ak jaamu yàlla loolu yaakaar naa itam ci fu bari da nga koy fekk ci alquran li koy luy soññee lu nuri loolu di ko fekk ci xadiis yi di ko fekk ci wax sëriñ bi masalan ci alquran dinañ ci fekk suñ borom bi digal jullit ñëpp li mu dugal yonente yi li mu dugal yonente yi te yonente yi li mu leen wax mooy yaa ayyuha rusulu kulu min at-tayyibat wa amalu salihan di leen soññ ci jëfandikoo ju dagan yi te itam loolu ci wax nañ gis nañ ci wax yonente bi tam lu bari muy mel ne kuy lëkkale sax jëfandikoo lu dagan ak jaamu yàlla ko nam masalan ci xadis saad bi ñu koy wax yaa saad atib ma taamak takun mustajaaba daawa mais day mel ne kon boo dee jëfandikoo lu dagan suñu borom day mën a nangu sag ñaan ñàkk jëf kon contraire bi mooy ñàkk jëfandikoo lu dagan day mel ne luy xaw a xañ nit ki ñaan gu nangu loolu itam gisaat nañ ko ci beneen xadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam da ciy nett li koo xam ne daa nekk ci mandarga yëpp yoo xam ne daal baaxoo naa ak ànd baaxoo naa ànd ak ñaan bu nangu ren ci tumuranke la nekk koo xam ne mi ngi tumuranke nekk ci digg àll bi sol yére yu woyof yooyu yëpp bokk na bu ñuy daan jàng salaatul istisqa daan nañ wax ni bokk na ci li ñuy ñaax mooy ñi koy def yi ñuy solo noo xam ne day woyof dem ci àll ba yooyu yëpp ngir yomba ngir toroxlu ngir dañoo jàpp ne toroxlu daa bokk ci yombal ñaan bu nangu ak teggi ni ñaan itam yëkkati sa loxo jëme ko ci kaw asamaan loolu lépp xarit bi noonu la ko waxee daan ne waaye nag lu lépp ba mu ko defee fekk na mataamuhu xaraam wa malbasuhu xaraam wa xudiya bil xaraam fa annaa yustajaabu laka daawa waaw bu fekkee ne loolu lépp da nga koy def waaye li ngay def ci sa biir li ngay teg ci sa kaw yaram dafa dafa nekkul lu dagan sag ñaan dina jafe ñu nangu ko loolu itam bu ñu wàccaatee ba ci waxi suñu sëriñ bi Cheikh Ahmad Bamba da koy da koy wax lu bare bare bare ci mbindam li ñuy wax rek mën nañ see jàpp bay bi muy waxee iltamisul xalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa taa kon day wane ne lekk lu dagan ci boppam ak njub ak topp yàlla bu gaaw ci loolu lañ ko mën a mën a amee mi ngi waxaat ba tey tamit ci ci maj ci ci majmuwa bi moo xam soxla la wala kubra ñaar yëpp nekk wax na ci loolu wax jooju ñëw na ci ñaar yëpp di wax ne képp koo xam ne day jëfandikoo lu araam loola day sos ci biiram jëf lu araam jëf ju araam ku jëfandikoo lu lënt tamit loola day fay sos jëf lu lënt daan ne mooy tax ci jëfandikoo lu dagan dana yegg ci bëgg topp yàlla sax du ko man loolu kon day wane ne rek jàngat am koom ak li ko wër ak nu ñu koy wam mi ngoog ak nu ñuy nu ñu koy nu ñuy liggéeyee nu ñuy financé nu ñuy liggéeyee loolu day doon loo xam ne kon mënta ñàkk loolu jàpp naa ne mooy doon laytaayal li ñuy def tey mooy woyofal ngànt loolu ma waxoon ci ci njalbeen loolu nag bu fekkee ne jàpp nañ ko ñu gis ne li ñuy wooyee économie moom moo xam ci ñaari pàcc yi koy séddalee ñu koy gëstu dañuy wax dañuy wax micro économie ak macro économie xam naa bu ndaw ak bu mag rek la ñuy wax waaye ci gàttal ndax xëy na dañu dugg ci loolu mooy détail waaye ci gàttal lépp lu ñu wax macro ci wàllu économie mooy loo xam ne état yi ñoo ko ñoo ko yore ñoo koy toppatoo bu dee rek li ñuy wax ci micro mooy nit ku nekk masalan nit ki nu muy def ba am bay ba ab liggéeyam mu koy ñoŋal di yorub liggéeyam di di di di mën a liggéeyal boppam di mën a am loo xam ne lépp lu ñuy jaay itam soxla ko mën koo jënd li jàngat loolu moom la ñuy wooye ñaari microéconomie bu dee nag ci li li féete li féete ci wàllu état yi wala boog sax mën naa bañ a tudd état waaye noo ko tuddee rek waaye yow mag lu mu mën a doon mooy loo xam ne ni ñuy fexe ba ab liggéey mën a jàppale ci ñëpp moo tax ñu ñu dégg bu baax a baax bu ñu wax loolu ñu wax nit ñi dañuy pauvreté di wax chômage yooyu ñuy wax li ko waral mooy ñoom ñooy fexe ba condition yi liggéey condition travail yi mën a yokk mën a yomb ci ñëpp fexe itam ba réguler prix yi ci marché bi ba nit ñi mën a jënd mbir yi ci njëg yu yomb yooyu mooy li ñuy wax macro ñaar yooyu bu mu ci doon ci ñaar yi nag moo xam micro moo xam macro daa mënta ñàkk lu koy financé daa mënta ñàkk lu koy financé kon finance loolu mooy relation ak économie moo koy financé moom mooy tax économie koom mi di mën a màgg loolu di ko màggal dafa laaj moyen yoo xam ne moyen financier la dafa laaj ay koppar koppar yooyu nag nañ ko ciy defee ak nañ koy wutee loolu la finance moom di lijjanti bu defee ñoom ñaar kon ñaari mbir la yoo xam ne daanaka ñu ngoog ñoo dañoo taxoo taxoo gi loolu moo ko waral masalan misaal bi ma ciy jël boo jëloon ci li may wax macro économie état yi masalan nga xam ne ñoom dañuy lijjanti lu jëm ci wàllu liggéey tey da ngay dégg ñu wax budget wu réew mi nangam la loolu bu ñu ko waxee mooy dañuy wax mboolem jëwriñ yi ku nekk la nga la nga war a liggéey ci at mi seetal ñaata moo koy def yor transport ne man bëgg na maa def ay tali bëgg na maa def ay oto bëgg na maa def nangam la mu war a def lépp mu seet ko ba ne nangam moo koy def ci xaalis bañ juboo ci ñu tënk ki yor wàllu mbir gi yaram wax loolu moom itam hôpitaux yi ma bëgg a tabax ci réew mi li ma bëgg a jël ci ay ja ci ay liggéeykat li ma leen li ñu leen war a fay buñ la xoolee loolu lépp mu ne nangam la ñu tënk ku yor lenn lu ne ci pàcc bu nekk ko yor def loolu ñu dajale ko ñu ne la kon nangam la ci xaalis kon loola mooy li nga xam ne moom la ñu war a def ci économie bi ren xaalis boobu nag fan lañ ko war a jële finance doog a ñëw bu ko defee ñu ne nang ñu ne kat loolu fukk la masalan liñ soxla lépp lépp ngir def lépp fukk la bu ko defee ñu ne liñ ci mën a am jële ko ci suñuy poche masalan ci recette fiscale yi ak recette douanière yi liy jóge ci port bi ak liy jóge ci impôt yeeg taxe yi ñu ne loolu juróom la kon def na juróom ngir liñ bëgg ñu def ñu ne juróom yooyu fu ñu koy wute am na wutin yu bari waaye bi ci gën a bari lu ñuy dégg mooy leb dañ ko leb buñ ko lebee dem mën naa am dañ leen ciy tegal dara muy intérêt bu dee état yi loolu lay defee kon mi ngoo ko ci daal finance bi ñëw mooy finance économie bi liñ jàpp ne moom la ñu war a def ci économie bi li koy finance bu dee nit ki tamit noonu nit ki ci wàllu boppam day seet ba ne man damaa bëgg a liggéey nangam laa bëgg a liggéey nangam yow bëgg a liggéey nangam moo koy def mu lam poosam bu dee la mu war a def fukk la mu lam poosam juróom a ci nekk des na ko juróom ngir liñ bëgg a def mu mën koo def mu ne juróom yi des naa ko wuti comme koy wutee tamit mën naa xool ay xaritam ay am di jàmmam yoo xam ne mën nañ ko ca jàppale waaye li ci gën a bari da koy lebi rek moom itam way lebi ñu ngi ko mën a leb mën naa nekk banque mën naa nekk en tout cas ci système financier bi soobaa loolu itam da ngay gis ne loolu mooy kon taxawaayu finance kon njariñam foo ko takk mën na mën ngaa wax ne weesu na ko ndax mooy économie bi luñ ci mën a wax buñ ko waxtaanee ba nag faaw dañ koy financé kon day mbiru loo xam ne dafa mënta ñàkk ci am réew muy dox réew yi gën a avancé ci àdduna bi suñu doon koy wax léegi boo leen de boo fa demee wàllu gii ñu waxtaanee mooy wàllu finance dafay dafa dafay développé bu baax a baax ñu yegg ci daanaka nit ku jëflantewut ak banque yi mënta nekk du fa xaw ma nekk suñu réew yi nga xam ne ñaare ñoo gën a néew doole ci wàllu économie itam moo tax wàllu googu dafay dafay soox waaye nag du fekkee ne xam nañ ne solo sii la am itam dina jar ñu taxaw nag seet ni ñu koy defee tey ci àdduna bi ak ñun suñuy pas-pas ci wàllu diine ndax ànd na ak su àndul ndax fexe ànd na kon day mel ne tomb yi ñuy war a ñëwaat yépp daanaka ci foofu rek foofu rek lay lay jëm waaye bala ñoo egsi ci tomb yooyu damay wax ne ndax leeral système financier bu ñu koy wax mooy lan jàpp naa dina baax ñu leeral baat yooyu tamit xam nga tey maa ngi wax ne état bi la wala nit ki bu ñu xoolee ba gis ne li ñu war a def te bëgg ko manqué ne nangam ñu war koo wuti wut gi léegi day laaj ñu xam fu ñu koy wute masalan boo dee da ngay leb itam boo ko bëggee yemale sa xame rek du yàgg ndax leb ci ñi nga xam moom dafa limité déjà ñi nga xam bariwul àdduna bi boo jëloon nit ñi kenn kenn ku nekk ci ñun ci àdduna sépp kenn kenn koo xam ne boo jëloon àdduna bi nga xaaj ko téeméeri xaaj nit ñi benn xaaj ba masalan un pour cent wu kenn kenn xamut un pour cent wu nit ñi ci àdduna bi ñun ah 1 pour cent bi sax boo ko xaajee tax nit ñi bu dee 6 milliards lañ 1 pour cent bi 60 millions yi nit la kenn ku mën a xam 60 millions yi ëmb soixante millions yi sax boo ko xaajaatoon téeméeri xaaj benn xaaj bi day nekkaat juróom benn téeméeri nit juróom benn nit juróom benn téeméeri junni nit nit ku xam juróom benn téeméeri junni nit tamit def naan amul wala bariwul kon li nga xam lu néew a néew la ñi ci àdduna bi te ci biir ñooñu nga xam itam ngir ñu mën laa jox li nga soxla day am confiance bu fay am seen biir amaana boo xam ne day koy wóor ne boo ko lebee bu la lebalee di nga ko joxaat te loolu itam yaakaar naa ne lu lu ñuy def mel ne day gën a ñàkk wóol kóolte googu kóolte googu noonu ci biir nit ñi demen day gën a ñàkk kon buñ ko yamalee ci forme yu classique yi rek ma soxla dara dem ci seeti suñ móodu xayra wala suñ diw mu jox ma ngir li ma bëgg dina dina xat lool te ñii mën a xaj seen soxla ci loolu du bari kon loolu moo jur li ñuy wax système financier système financier mooy lan mooy dañoo teg benn pôle ci digg bi comme gis nañu àdduna bi li fi nekk ci am koom bari na ñoo xam ne lañ yor moom am na ci lu bari lu mën a xaar loo xam ne jëfandikoo gi jàmp am na ñoo xam ne ñoom li ñuy xaar rek mooy yor koom muñ mën a liggéeyee ngir lëm liggéey ñu ne nañ teg benn pôle boo xam ne ñu yor li nga xam ne jëfandikoo gi jàmp dañuy indi ji denc ko wala ñu joxe ko ñi am soxla ñoo jël ci ko dem liggéey ci indiwaat loolu moo jur ñu xalaat teg ay système ñu wax ay système financier loolu nag bu xasee am amatut xamee yow benn pôle boobu fu mën a nekk ci àdduna bi masalan banque bu mën a nekk ci àdduna bi ku nekk ci àdduna bi boo respecté conditions yi tax nga mën faa dem mën nga faa dem jëli fa xaalis lu def kon soxlaatuñ léegi ñëpp di xamante pour mën a jëflante loolu moo waral ñu xalaat système yu bees yi ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu finance kon système la boo xam ne tam kon rôle bu am am solo lay joué ci wàllu économie ndax mooy tax ressources yi nga xam ne jëfandikoo gi jàmput maanaam ñu yor xaalis bi nga xam ne jëfandikoo gi jàmput te seeni borom fañ ko teg am ñu ko fa dem fekk jël ko te loolu bari la xaalis boobu lu baree bari la xaalis bi jàmput jëfandikoo gi jàmput lu bari la ba ci suñu réew mi rek ay ay junni milliards la mat li la koy xabal mooy da ngay seet banque yi ñaata la ñor ci xaalis banque moom lu mu yor ci xaalis ñu ñee ko moom waaw lu mu yor ci xaalis da jàppal nit ñee ko moom li ñu yor ñoom lañ moom mooy ta tabax yaag la ca aju waaye li li ñuy liggéeyee mooy li nit ñi moom te banque yi dañ ci gis ñoo xam ne li ñu yor di ko liggéeyee mat na junni milliard ak nangam ci réew mi am ci ñoo xam ne junni bu manqué tuuti muy dem ñi daanaka ñi ci gën a néewle moom li ñu yor mën na téeméeri milliard te loola lépp ay nit a ko fa def kon nit ñoo ne soxlaa guñ ko soxla si dem loolee firi ngir ñeneen ñoo jël si ko loolu kon noonu noonu lay noonu doon lu mel noonu nag bu amee ñun ñëpp ñu nga xam ne dañuy interpeller ndax jàpp nañ ne solo si moom bari na boo ko takk weesu na ko ndax loola mooy finance économique bi waaye nag day jar ñu laaj suñu bopp ndax mënees naa jëfandikoo loolu ak bu dee mënees koo jëfandikoo naka la ñuy def ba mën koo jëfandikoo def naa loolu mooy daanaka sababu li ñuy li ñuy waxtaane nii tey te loolu itam day duggaat rek ci liñ xam ñun ñëpp ne lislaam moom xaajjalewut àdduna si ak mbiru mbiri mbiri waxuñ ne lii mooy àdduna fii la àdduna yam fii la alaxira ci àdduna la ñuy fàggoo alaxira kon lépp lu ñuy def ci àdduna rek mën nañ cee fàggoowaale lu jëm ci ci alaxira comme niñ ko niñ ko niñ ko xamee ñun ñëpp loolu nag yaakaar naa ci laytaay dina doy ñu ñëw nag ci tomb kon bi nga xam ne jàpp naa ne mooy laytaayal thème bi ci boppam te mooy jëm nii nag système financier bii ñu miin ñun ñëpp ñu xam muy banque yi ak microfinance yi ak assurance yi ak li ci aju ndax bu ñu waxee système financier bi lu yaatu la banque yi ci lañ bokk banque yi boo ko waxee xam naa ñàkkut ñu ñu ñëpp xëy na xàmme nañ leen microfinance yi mooy ñi xaw a ndaw ñi leen gën a ndaw tuuti mën ngaa joxe ay exemple ci ay banque mën ngaa jël lu mel ne Sabayabo mu tudd ko tudd lu mel ne Société Générale tudd lu mel ne banque islamique bu Sénégal tudd lu mel ne ay banque of Africa yooyu ay banque la ay microfinance mën ngaa jël lu mel ne crédit mutuel microcrédit ay asset yooyu ay microfinance man assurance yi ñu xam tamit loolu lépp ci système bi la dugg système li ñuy wax système financier ci la dugg moo tax li sëñ Modou wax léegi ne daanaka 45 pour cent wu nit ñi mooy boo jëlee téeméer boo jël ñeent fukk juróom yi mën ngaa jàpp ne ñu ngi ci système bi mën na ko ëpp sax ndax boo ci boolee assurance yi da ko ëpp ñun ñi ñëpp suñu oto yi ay assurance ñoo ñu ko assuré loola war nañoo laaj suñu bopp ndax lu lu ñu war a def la wala ndax amuñu badil ci loolu lu ko mën a wuutu te yaakaar naa ne boo ci dollee wàllu assurance ba mu tudd di nga xaw a jege juróom-ñaar fukk wala nga ëppal ko ci téeméer boo jël kon lu yaatu la loo xam ne nit ñi ñu ngi koy jëfandikoo bu baax a baax a baax léegi nag bu ñu ñëwee rek kon ci système financier bii ñu miin banque yi ñu miin yàgg leen a xam ak microfinance yi ñu xam ak assurance yi ñu dañuy jéem a jël rek lenn ci seen i jëflante jàngat mooy na na naka lañ koy defee xëy na su boobaa dinañ mën a tontu ci laaj yi nga xam ne moo ñëw gannaaw bi wala boog dina am ñu ko man sama classe bi xëy na duñ ko mën lool waaye dina am ñoo xam ne moom dinañ mën a tontu ci laaj yi nga xam ne moom la borom xam di laaj ci wàllu boobu masalan boo jëlee lu mel ne secteur bancaire bi wàllu banque te bu ma ko waxee mën naa yóbbaale microfinance da ngay gis ne bokk na ci li ñuy jëf jëfandikoo lu ñuy wax prêt bancaire prêt bancaire loolu yaakaar naa miin nañ ko ñun ñëpp mooy lépp ci banque rek lépp ci banque benn jëf li ci gën a bari ñu xam ko ñun ñëpp mooy nga am soxla dem seeti banque bi ngir faj sa soxla moo xam loo bëgg ab liggéey ba bëgg a def la moo xam leneen lu mën a doon la wala loo bëgg a jënd banque bi ne la kat loola nangam nga soxla kon nangam dama la koy lebal waaye nangam nga ma ciy tegal bi sàngam nga ma koy fay wala fii ak dat dat sàngam nga ma koy fay waaw nangam laa lay jox nangam nga ma ciy tegal loolu la ñuy loolu mooy mooy bi jëflante bi ñu ci gën a xam ñun ñëpp mooy prêt bancaire loolu mooy mooy nga xam ne day am day ànd ak lu ñuy wax taux d'intérêt moom la ñu lay wax nangam pour cent nga ciy teg ci at mi ñu koy calculer ci li nga war a fay ngay fay di ci teg loola loolu ak jëflante la boo xam ne banque yi ñuy banque yi ñu xam loola mooy seen jëflante bi gën a yaatu daanaka seen jëflante yi boo ko xaajoon téeméeri xaaj juróom-ñett yëpp daanaka ci nii lay nii nii lay doxe ak li ànd ak lii mooy prêt bancaire ak li mu àndal loolu nag mooy ñi soxla masalan xaalis banque bi bu ñu koy jëli kon anam googu lañ koy jëlee maanaam ba xaalis ba fa ay diw sàngam teg ci woon keneen ñëwaat soxla ko bu koy jël ci condition yi la koy jëlee mais ka ko koy joxe nag moom yeen condition la koy joxe loolu tamit am na ay xaat masalan am na ñoo xam ne dañuy am na lu ñuy wax compte courant naa xam nañ ko ñun ñëpp ndax am ñu bari am nañ ko ci ñun compte la boo xam ne damay ñëw rek jox banque bi sama xaalis mu dencal du ma ci tegal dara ma itam du ma ko xëy na ma di ko fay sax ci denc di ko denc xaalis boobu nag banque bi su ko jëlee moom da koy joxe da koy lebal ay nit ñi ko soxla ñu dem di ci liggéey mu leen ci mu koy leblee ci anam gi ma waxoon sànq noonu la ci noonu la ci jëfandikoo du ko fa denc rek tegal la ko fa saa boo ñëwee laaj ko dee day koy jël jox ko ñi ko soxla yow saa boo ñëwee fekk fa keneen joxaat joxawaat na fa leneen mu jox la loola ay sa xaalis ba nga joxewoon moom yow kenn dencal la ko fa di xaar nga laaj ko waaye nag am na ñu fay denc waxtu wu ne ak ñuy bu ko defee yow boo dencee ci dugal ci la fa nekk lépp rek saa boo ñëwee itam loo fekk mu jox la ala kulli xaal am na ñiy saytu wàllu banque ci réew mi moom norme yi ñu ci teg mooy ku fa dénkaane saa bu laajte da nga ko war a jox yaa xam nag noo koy joxe bu fekkee ne teew na fi nga jox ko su fi teewul nga léegi jox ko ay faaw nga jox ko moo tax banque yi ñoom itam dañuy leb ñu leen ci tegal ñoom itam ay intérêt ngir ñuy jox nit ñi seen xaalis bi ñëw di ko laaj am na itam compte beneen boo xam ne bokkut ak boobu xeeten bu xeetu compte mën nañu wax compte d'épargne moom ñu yëpp xam nañ ko ñun ñëpp daanaka moo moom jël te moo gën a xaw a jafe tuuti bii ñu waxoon waaye moom itam boo ko xasee def sa xaalis yaa ko moom te wax ko mën nga koo jël waaye jëli mi moo gën a xaw a jafe moom itam mën ngaa jubóo banque bi ci mu la ciy tegal nangam waxtu sàngam saa bu jotee weeru jot ñu defal ñu ñu tegal la ci nangam wala ñaar weeru jot wala ñetti weeru jot te montant ba nga fa def kon day mel ne da ngaa lebal banque bi sa xaalis boobu ba waxtu woo ko soxlaa moom mu la ciy tegal moom itam ay intérêt loolu lay loolu lay loolu lay loolu la xeeti compte boobu di di def. am na beneen boo xam ne moom la ñuy wax dépôt à terme par exemple ñu fiy def banque bi dinañ ko xam waaye ñu jëflante ak ñoom da ngay jël xaalis bi jox leen ko ñu denc ko doo ko jëlaat ba waxtu sàngam lu dul saa bu ñu ci dëppoo wéyee ñaar ñëpp fii ak waxtu woowu nag weer wu jot ñu tegal la ci nangam wala ñaar weeru jot wala ñetti weeru jot loolu jëflante itam loola boo xam ne siiw na bari na ci banque yi te yaatu na fi itam ña fay yóbbu yenn xaalis itam lu ci bari ci anam boobu la ñu fay yóbbu. kon loolu itam seen jëflante la bokk bokk na seen jëflante tamit yaa bari na lool am na lu ñuy wax découvert par exemple ñuy jëflante banque yi daañu ko xam rawat na jàngalekat yi rawat na jàngalekat yi ñoom daañu ko xam bu dee xeet jëflante woowu. moom kii ne mooy da nga koy am sa compte di fa denc banque bi di ko jëfandikoo saa bu demee ba xaalis ba jeex ñu may la nga jël tamit ba egg ci ab ba egg ci montant sàngam nga xam ne sa xaalis nekkatu fa waaye da ngay continuer di jël ci compte ba loolu nga koy jël nag moom itam da nga cay teg dara naan la waxtu bis bu set bu ne am na nangam joo ciy fay ci loolu nga jël sa xaalis muy ay intérêt débité yoo xam ne bis bu set dañ lay facturer saa boo dugalaatee xaalis ci compte bi te dagg ko ci ñu bari la xeet yi xeet yi bari la am na ay lu ñuy wax avance sur facture am na ay rachat waaye yooyu yëpp daal boo ko boolee rachat de dette masalan dinañ ko dinañ ko tudd ndax moom itam dafa am iskaliya bu ci ne mooy lu mel ni nga amee woon ci banque bi bor boo xam ni dafa war a jeex ci at waaye ni nga koy fayee par weer xaw naa diis banque bi ne la dama koy dama lay lebal montant bu toll ne bor bi baa lu gëpp sax nga fay ci bor bi waaye nag bii ma la koy lebalaat bii yoon ci ñaari at wala ñetti at laa la koy def bu ko defee li ngay fay par weer mooy gën a woyof waaye da ciy tegaat encore ay intérêt yi loolu jëflante bu yaatu la rawat na ñi nga xam ne dañ jàngale ba ñu nekk ay liggéeykat ñu leen di fay dañuy bari lu ñu jëflante banque ci anam bu mel noonu amaat na yeneen yoo xam ne xëy na du jar tudd lool am waaye daanaka yëpp rek ñoo fi ñu daje ñoom mooy lu mën a xew banque bi moom bu la joxee xaalis nañ ci deggal boo koy fay doo ko fay noonu rek donc jox la nga la nga la nga jëloon ci moom te joxin wi lebal lay tudd dañu koy lebal nga fay si waaw banque bi bokkut ak yow liggéey sa bokk la ngay liggéey jéem koo xam ne jënd moom daal dala koo lebal nga fay si waaw loolu la noonu lay tudd même bu la laajoon li ngay liggéey sax ngir xam ko seet ba xam mën ngaa fay rek la ci jub ak seet ndax liggéey bi li ñuy jur ci njariñ boo tolloo nag li nga war a fay ngir seet ba xam mën ngaa fay waaye jëmmi liggéey bi moom mën na koo bañ a yitteel yitteel bu ñuy bu ñuy wax kon yooyu ay ay ay ay mbir la yoo xam ne noonu la daanaka banque yi di jëfan di jëflante am na nag yeneen xeeti jëflante yoo xam ne bokkut ak yi dara mooy rek da ngaa bëgg def ak transfert wala virement banque bi defal la ko yooyu moom sa xaalis la yaa ko moom banque bi la koy defal fayeeku la ci rek loolu moo gën a woyof waaye moo gën a néew itam lañ koy jëfandikoo ci banque moo tax du jar du jar xóotal léegi yii ñu tudd bi ay xeeti jëflante nga xam ne ñun ñëpp miin nañ ko yaakaar naa te itam ñi koy def ñu ngi jege lool daanaka bu ñu génnee yam ci ñoom iskaliya bu ci mën a nekk nag daaf naa loolu mooy dëgg-dëgg itam mooy al qurud wal muamalat al bankiya fi misaani sharia al islamia mooy jëflante yooyu dañ ko doon tudd ngir ñu xam ni muy doxee jëflante yi naka lañ koy mutabaqa naka lañ koy mumarasa ci banque yi ngir ñu xam buñ ku ci jooyal atte xam atte bi ngay jooyal lu muy doon waaye balaa ñu ci loolu ñu fàttali rek ne mbirum banque itam daanaka lu sosoo la ci dëkk tubaab yi loolu ñu faaw ñu fàttali ñu leeral ko ci dëkki Europe dëkki Europe yi surtout ak ci ak ci mën nañu wax ak ci ak ci ak ci Grèce sosin yiñ ci yiñ ci njëkk a tàmm yiñ ci yiñ ci seetlu nag nga xam ne daanaka joxe suñ doxalinu banque tey yii moom te yooyu lay dellu ndax yàgg naa am ay set yu ko niiru waaye nag bii nga xam ne moom la ñu yor tey façon boobu moom jàpp nañ ci seizième siècle la sos rawatina ci mille cinq cent quatre-vingt-deux la lañ ko tàmbalee xam bi ci gën a bi ci njëkk bi ci gën a siiw te ba léegi muy des di am moom ñu ngi ko sos mille six cent neuf te mooy banque Amsterdam Amsterdam bi nekk Hollande ba léegi yaakaar naa ñi tukki ñu bari nañ ko xam tukki yi dem Hollande dañ ko xam banque boobu moom mille six cent neuf lañ ko sos kon ba léegi ci dix-septième siècle début dix-septième siècle bi moom kon dañ jàpp ne mooy modèle ci banque tey yi ñu xam ni banque Amsterdam boobu noonu bi ñu doxee tuuti am na yeneen banque yu sosu masalan banque d'Angleterre banque Angleterre moom ñu ngi ñu ngi sos ci mille six cent quatre-vingt-treize mille six cent quatre-vingt-treize nekkoon Londres moom itam mi ngi am ba léegi mi ngi am ba tey dox nañ ci diggante boobu daanaka lu mat ñaari siècle mu doog a yegg ci dëkk jullit bi mu doog a yegg ci ci dëkk jullit bi dëkk jullit bi ko bi ñu ko njëkk a xam tamit mooy Égypte ak Égypte ak al bankul masri banque d'Égypte rek banque Masri boobu banque Angleterre bi ma waxoon léegi moo ko moomoon maanaam banque boobu la banque Angleterre bi la toppoon ñoom ñoo ko fa def ñoom ñoo ko fa def muy dox ca na seen banque di doxee itam banque boobu mi ngi am 1857 lañ ko lañ ko def Égypte kon boobu xëy na moo gën a mujj yi may wax yëpp 1857 ginnaaw bu amee ñu bari ñu tànte woon def fa banque ndax gisoon nañ ne xëy na tukki woon nañ ñu bari ci ñoom gis ne am na njariñ jëflante bi am na njariñ ndax économie daanaka banque yi ñoo koy financé lu mel ne Mouhamed Abdou masalan ci 1830 tenté na ko sottiwut ba ci 1857 lañ doog a am bankul bankul bankul Masri boobu may wax te mooy banque d'Égypte gannaaw bi nag ñu tàmbalee tasaaroo bu baax ci réew jullit yi ci façon bi ñu ko miine nii waaye comme ni nga xamee ne jullit ñi saa bu ñu découvrir lu bees saa bu lu bees ñëwee ci ñoom seeni borom xam-xam dañuy laajte ay question lu bees lii naka lañ ci war a doxe par rapport ak suñu diine naka la ko suñu diine gisee loolu moom mooy li nga xam ne mënta ñàkk saa buñ gisee saa bu lu bees ñëwee dañ ci dañuy laaj laaj te yooyu ndax lu bees nii sañ nañ ko jëfandikoo wala déet moo tax borom xam-xam yi diine yi tamit laajte nañ ay laajte yu baree bari xool nañ daan jëf li nga xamoon jëf ci jëfandiku ci diine ci suñu fiqhul muamalat ak lii ñu indi lu bees ci 1857 ci suñu réew yi mu tàmbulee ci Égypte tasaaroo loolu ak suñu diine naka lañ def ndax luñ sañ laa jëfandikoo wala luñ sañ ca jëfandikoo laaj yu bari lañ ci laaj laaj yi bokk na ci ndax lii ñu wooyee intérêt bancaire daa bokk ci riba bi ñuy tere ndax jan ñëpp xamoon nañ riba nasiya yàgg nañ koo jàng xam ne tamit day juddoo ci leble ci bor ci lay juddoo bu juddoo ci bor soit dañoo laa jox bor bi teg ci dara ngir liñ koy fay ci ab àpp bu ñëw ca kanam wala sax dara tegu ci woon waaye danga dem ba àpp ba jot mënoo fay ñu yokkalaat la ci beneen àpp dara ci tagaat dara te mu xaw a niroog li aaya bi tere ci yaa ayyuha alladina amanu la taakulu riba adafan mudaafa ndax ñuy tafsir aaya boobu ñu bari dañuy wax ne jëflante bu mel noonu la woon dañ la daan jaay dara nga war koo fay jëg bi fii ab sàngam ab ba ñëw mënoo fay ci jamono jaay yi ñu wax ne kat nañ la yokkalaat ab bi waaye da nga yokkaat ci la nga waroon fay nangam kon riba nasiya noonu lañ ko daan faral di jëfandikoo ndax nag intérêt bi banque yi teg ci li ñuy leble ndax daal day dugg ci riba boobu ñuy tere ci lislaam wala duñ ko wala dugg ci bokk na ci laaj yi ñuy sàmm li ñu xamee jëflante ci banque ndax lii ñuy wax assurance may fay ngir saa bu yàlla dogalee mbir xew assurance bi ñëw saafaraal ma sama jàngoro bu mbir xewul nag la ma fayoon assurance saafara ndax loolu ci xarat biñ daan jàng la dugg wala dugg ci mooy jënd loo xam ne xamoo lu mu wala xamul ndax dinañ la ko jox wala duñ la ko jox ndax assurance liñ lay assuré li ngay fay ngir ñu couverture biñ lay dig mooy bu yàlla masalan bu dee kee otoom bu accident amee te ñu tooñ la bu fekkee ne ki yëru touriste te ñu tooñ la daañu la saafaral dañu la defaral sa li nga yàqule waaye kon bu accident amul dara waru leen te yow yaa ngi fay waaw ndax loolu ci xalaat buñ xamoon la dugg wala dugg ci loolu laaj bu samp la ki joxe xaalisam ci banque bi ñu ko ciy tegal dara waxtu sàngam bu ne nga xam dafa ñëw rek dénk ko fa ñu ñu garantiral ko ne ko xaalis bi soo ñëwaatee di nga ko fi fekk daañu la ko jox waaye daañu fekk nangam ndax loolu itam ci riba bi ñu tere woon la dugg wala dugg ci loolu itam ci laaj yi ñu samp la bokk ndax sax ki nga xam ne sax dafa joxe xaalisam ci banque bi kenn tegalu ko ci dara waaye dañu jël xaalis boobu di ko jox ñeneen ñu ciy liggéey di ci fay ay intérêt ndax sax kooku mën nañoo jàpp ne mi ngi def ak taawun ala ismi wal udwan ndax dañuy day dugg foofu la dafa dugg loolu ci laaj yi sampe la bokk ndax kooku sañ na loolu jox ko xaalis banque bi ngir mu jox ko seen jiw mu ba yor ko ba dat sàngam mu fay teg ci nàngam ak itam biñ amee bourse yi ñu xam ci suñu marché financier yi ñu jënd ay action ma dem jënd ay action yu bari action yi mën naa nekk ci benn entreprise la wala entreprise yu bari yuñ boole jaay ma ci ay action action yooyu mooy jënd léeg-léeg mu boole entreprise yoo xam ne yu dagan ak yu daganut la wala benn entreprise buy def lu dagan ak lu dagan masalan entreprise buy defar ay boisson di ci boole waale defaraale sàngara jéglu ci bari ñu tudd ci barab bi bu ko defee entreprise yooyu may jënd ay action ndax action banaam dem taxawal sa entreprise ku ne da koy def waaye dem jënd action ci ay entreprise mooy dama caa bokk léegi maanaam résultat ba ñuy am dama di jox sama wàll ndax entreprise yooyu nga xam ne entreprise yi yoo xam ne dañuy jaxase lu baax ak lu baaxul su ma ci jëndee action ndax maa ngi nekk di investir def sama xaalis ci lu dagan di jël di liggéey lu dagan masal loolu ay laaj yu bari la yoo xam ne samp na bi ñu découvrir ci système financier bii nii ci at yooyu ma wax bi ci ëpp bi ñu ci ëppal solo ci ñu wax nii rek te mooy xëy na li jëm ci intérêt banque intérêt yi nga xam ne mooy le banque yi di jëflante ndax ba yaakaar naa moo gën a yaatu ak banque assurance yaatu na loolu itam bi ñu laajee sampe laaj yooyu ay xalaat borom xam yu am nañ ñu tontu yoo xam ne nag mën nañoo bañ a tënk ñun waaye ñun itam laaj yi dañuy interpréter war nañ ko laaj suñu bopp war nañ cee tontu itam am nañu ci tontu doon ñu wax ne mboolem li banque yi def dafa dagan ndax jëflante yu bees la yoo xam ne ci ay contrat yu bees la ci tege ba ñuy wax riba ba ñu doon wax loola dugg ci woon am na ñu wax loolu donte nag mbooloo mu néew la moo xam ne dam seen wax ñi ko intibaar ci wàllu ji bariwut waaye am na ñu ko wax ñoo ne boo bind boo xoolee téere yi da ko ci fekk am ñeneen mbooloo mu ñaareel moo xam ne ñoo xaw a gën a dëgër la ay wax ñoo gën a bari tam ñu ko wax mooy kat banque yi li ñu def lépp dafa araam waaye nag darura la jëf la jëf jëf jëflanteeg ñoom moom des koo mënta dañ koo mënta ñàkk a dem mu ni saa yóbbu ñàkk yóbbu xaalis bu ñu amee soxla mënuñu fa ñàkk a dem uti ko fa am na ñu wax loolu mbooloo mu bari lay dem ñu ko wax am nañu ñetteelu mbooloo moo xam ne nag ñoom seen wax moo gën a yaatu wax dëgg yàlla moom jàpp naa ne itam jamono ji moom moo gën moom lañu war a gën a intibaar moo ñoom dañoo wax ni lu ëpp ci li banque yi def dafa araam lu ci ëpp lépp loo xam ne dafa laal ci leb la ñu ci teg dara dafa araam masala lépp loo xam ne dafa laal ci joxe fa sa xaalis ñu la ci tegal dara dafa araam te tamit loola darura dugg ci wax loolu ne loola darura dugg ci ndax sañ mënees naa am pexe lislaam waajal na ay pexe yoo xam ne mënees na cee jaar lañ doon dàq fële ñu am ko ci pexe yooya te duñu ko jaar ci yoonu araam te darura bu fekkee ne pexe am na darura du mënatu amati wax darura darura tuqaddar kon bu fekkee ne pexe mën naa am duñu jàpp duñu jàppati ne jëflante ñoom darura la pexe mi soit dafa mën a am te amagut dañ ko war a amal ba mu am ba pare dañu war a jëflante ak ñooñu te bàyyi te jëflante pexe yooyu te bàyyi pexe yi nga xam ne mooy seen finance yi loolu nag jàpp naa ne moom man moom la sama xel man gën a nangu waaye te am na ñoo xam ne ñoo yayoo ñoo yayoo tontu ci laaj yu mel nii xëy na ñoom dinañ ci tontu bu ko defee nag bu ndax pexe am na waaye ndax pexe am na defe naa ne loolu mooy doon kon tomb bi ñuy wax ndax pexe am na tey jii ndax li ñuy woowee système financier islamique ndax mën nañoo jàpp ne badil la ci suñu dëkki jullit yi comme dëkki Europe yi ñoom seetoon nañ seen système nañ ko gise woon dëgg la lañu tegoon baax na ak ñoom ndax ñoom li ñu tënk tënku leen te li leen ñoroon rek mooy li ñu financé seen économie ñun itam buñ gisee loola mën nañ cee inspiré wu teg luñ financé suñu économie waaye nag mu doon loo xam ne baax na ak ñun ci la borom xam-xam yu bari tàmbalee xalaat li ñuy wax finance islamique mu tàmbalee yaatu lool ci année mille neuf cent soixante dix waaye yaatu bi gën a bariwaat ci ginnaaw crise yi xewoon Amérique ci année deux mille huit yi boobaak léegi moom yaatu na ba tey dañuy wax ne ci àdduna bi li fi nekk ci alal joo xam ne mi ngi ci loxo yi ñooñu def finance islamique mi ngi toll ci quatre mille milliards de dollars quatre mille milliards de dollars nag alal ju bëree bëri la joo xam ne xaw ma man xaw ma mu toll ci CFA xam naa suñu Moodu ñoom dina ko moom dina ko xam loolu nag dañoo wax ne un pour cent rek moo ci nekk moo ci am Afrique maanaam waa africain yi moom un pour cent rek lañ di jëriñoo loolu nag jàpp naa ne xaw naa xaw naa ñàkk maanaam ndax dawoon Afrique de l'Ouest bi boo seetloo Londres rek Angleterre rek ñoom ñu ngi ciy pesé six pour cent ci ci loolu noonu te Angleterre dañoo jul jàpp naa ne foofu la jëflante finance tamit gën a yaatoo ci Sénégal foofu sax boo demaatee Malaisie yi nga xam ne tey daanaka ñoom référence lañ ci ñoom jullit ñi rek cinquante cinq pour cent lañ maanaam téeméer boo jël juróom fukk juróomi rek ñooy jullit fan yi rek am na ko naan ma dafa jóge bu yàggul nan ma waaye li ko ci li ci kii ci moom mooy boo ko duggee demee réewum jullit la à cent pour cent ci ñu nga ba noppi naataange ak lépp ndax ñoom du yàgg dañoo ci at yu mujj yi dañoo wax ne nangootuñ benn banque bu dul finance islamique di fa sos amatu fa ne ku fay amati agrément ngir def banque xanaa ya fa njëkkoon ay yu bees moom faaw finance islamique dañ koy def. waaw léegi nag finance islamique boobu nag ndax mën naa doon badil ci lii ñu doon wax léegi ci jëflante banque yi ginnaaw bu ñu tontoo ku nekk ci ñun ndax laaj yooyu ñu sampoon laaj tontu bi mooy waaw wala déet ndax seen liñ jëflante dafa araam ndax riba la wala wala wala. waaye bala maa wax finance islamique itam nan lay doxee damay tàmbalee ci leeral loo xam ne nag jàpp naa ne mënees koo ñàkk a leeral ndax ñu bari ci réew mi suñu finance islamique itam dañu def ne ay banque la wala ay institution la yoo xam ne dañ koy dem ñu lebal la xaalis rek bu waxtu wala dem ñu fayaat la nga lebal kese mu jeex lay lebal lañ teg dara loolu moom du finance islamique waaw loolu sax ab institution financière buy liggéey moom loolu dox koo jóg waaw finance islamique mook banque yi daa am luñ bokk am luñu wute liñ bokk mooy dañuy wut xaalis ay ay entreprise yu wut xaalis li ñu wute nag mooy kee da koy wut ci lu mu ko soobee kii dafa am lu ko tënk wutin woo xam ne moo commerçant bi ci marché bi te ak jullit ñoo yem ci loolu am na sañu te wute xaalis lu mu ko soobee sañ te jaay lu ko soob sañ te jënd lu ko soob sañ te jaayee lu mu ko soobee itam kii def finance loolu rek moo ko tënk sañoo jaayee nu la soobee sañoo jëflante nu la soobee waaye jëmmi leble ci ci lislaam moom ab jaamu yàlla la maanaam moom mbirum social la du mbirum banque du mbirum action financière leble lislaam benn feex benn xeet la ci nangu ci luñ xam mooy leble goo xam ne du am faayda kullu qardin jarra nafan fa huwa riba def naa faayda la faayda fiqhiya kon benn xeet boobu lañ ci am loolu nag lim doon ci lislaam mooy sa mbokkum jullit wala sa mbokk mu am aajo amut lu mu ko faja tey nga jàppale ko ci aajo bi te jàpp na ne dina mën a fay bor bi nga jàppale ko ci aajo bi saa bu mënee fay fay su dee koo xam ne moom përut mën a du mën a fay bor bi mukk te am aajo moom da nga koy dimbali ci gën anam nga koy may baa nga sarax ko baa nga seet na ne noo ko def waaye leble moom da nga ko am aajo te yaakaar ne kat amut tay tay tay lu faj aajo bi waaye nag xëy na ginnaaw suba wala feeki fan dina ko am bu baa nga lebal ko jaamu yàlla ci jit jooju bu demee ba jekk ko moom itam fayaat la saxal loolu moom du mbirum ku jóg di liggéey mbirum kuy wut tiyaaba la loolu yaakaar naa itam par point la bu mat a leeral bu ko defee bu loolu leeree nag nga xam ne kon finance islamique ku koy def moom mën a doo leble ndax yow bu fekkee ne da ngay dugg ay bénéfice leble leb leble mën a doo ko def kon li ngay man mooy jëflante yi fëq waajaloon ne mënas na koo jëflantee ngir am xaalis yow itam ngay jëflan ngay ngay jëfe noonu masalan bu dee pool bi ma waxoon léegi boo ko tegaatee toujours ci système bi ñu waxoon ndax dañ koy systématiser pour man ñi am ay ressources yu bari luñ soxla ñu indi ko ñi ko soxla ñëw jël ci su boobaa nag ñuy indi dafa am xeet yu ñu koy indi duñ ñëw dénkaane ndax dénkaane itam ci lislaam daa am na muy doxe su ma dénkee xaalis amaana la bu yàqoo du ma la fay bu réeree du ma la fay bu dee amaana kese la ba noppi itam sañu ma jee laal dara maanaam sañu ma koo jëfandikoo ci dara ñi ci gën a woyof ñu nangu nga jëfandikoo ko defe naa ci wàllu kooku mooy maaliki yi te sax dañ ko si bu fekk mooy ci kaw nga man lool sa bopp nga xam ne boo ko jëfandikoo woon tamit saa bu waaj ñëwee laaj la nga mën ko koo jox soobaa lañ lay wax ne la kat boo ko defee araamut waaye sit na bu dul loolu moom day araam sax nga laal kon loolu itam ba léegi du nekkut li banque yi bëgg ñoom li ñu bëgg mooy alal yoo xam ne bu ñu ko yoree dañ ciy mën a soppax di ko moo tax dañuy wax ni bu dee dafay yóbbu seen xaalis ci banque yi bu dee financement bi lañ bëgg moom façon yi bu dee koo xam ne bëggute dara bëggut ko ci regal dara da ko faa bëgg a teg saa bu ko soxlaa jël ci li ci gën a siiw lu ñuy def mooy xard xasan lay nekk xard bor dañ koy lebal institution bi institution bi comme da la ko def koo lebal sañ na def lu ko soog waaye saa boo ko yittewoo da la koy fay da la koy fayal boobu benn la ci nga xam ne dara du ci toog baa bu dee da nga bëgg di am dara nag da ngay ànd ak moom liggéey da nga koy jox mu di ci liggéey lu mu am ci alal jooja ngeen seddoo te na ngeen jubóo mooy xiraat bi muy noon masalan wala wakaala bi nga xamoon nga xam ne da nga koy jox mu ci liggéey lu mu ci am jox la ko su matee nangam nag mu garde li ci def wala boog lu mu ci am ngeen séddoo ko ci nu ngeen jubóowee bu pertee nag nga xam ne da ngaa perte yow itam ndax da ngeen àndoon di liggéey loolu mooy ñaareelu ki nga xam ne dafa bëgg di fa def xaalisam ba noppi di ci am dara donte nag loolu moom banque bi daanaka banque bi perte moom ni naqari naa gis loolu xam naa ne ndax am na ay ñoom itam norme yu ñu leen teg yoo xam ne ngir ñu perte moom daanaka xaw naa jafe kon bu dee bu dee li ma njëkk a wax ci ne jox ko sa alal mu denc la ko saa boo ko soxlaa jël si ko ci en tariqil xard nga xam ne da nga ko lebal loolu moom itam dinañ ci nett li asar bu siiw ci Zubayr ibn al-Awwam mu daan na jëfandiku daan na jëflante jëflante gu mel noonu def naa Ibn Sa'd ci tabaqatul kubra mi ngi ci wax loolu ne nit daan na ñëw ci moom di ko dénk ndax daan yaxantu moom daan commerçant mag la woon buñ koy dénk danaan wax ne dawut nanguñ la ñu tudde ko dénkaan day wax day wax nañ ko def salaf salaf mooy xard ko def salaf ndax damay ragal sànku bi ma ne waaw inni axsha alayhi daya damay ragal mu sànk ndax bu sànkoo ci ndénkaan du fay te comme borom bëggul mu sànk day wax kon na koy jël en tariqil xar sañcee tasarruf saa bu ko borom soxlaa mu jox ko loolu nag doomam ci toujours ci ci tabaxaatul kubra ibnu saad day wax ne doomi doomam bi ñu abdallah nee na loola ñu ko daan jox ci cadre boobu ci en tariqil xar ci ab liggéeyam mujjoon na mat million ak ñaar téeméeri junni ci ay dërëm ndax alf alf woon état alf dirham la wax dama loolu mooy million ak ñaar téeméeri junni ci ay dërëm ci dërëm yi jamono jooju loo xam ne da ko daan def comme que yaa ne kooku xeetu système bancaire la doon def jël xaalis boobu di ko liggéeyee moom def ci ay yëg ci ku ñëw la mu ci defoon la mu ko da ko joxoon mu joxaat la ko bu fekkee da nga ko lebaloon bu bu bu bu dee itam ñi jëfandikoo financement bi bu ñu dagalee xaalis bi ba noppi tam bu ñu koy joxe ñoom itam joxin yi duñ ko sañ a joxe ci leble day am yeneen dañ jàngoon ni ñëpp te te te suñu risaala ak téere yi jàngoon yëpp rek mën naa nekk par exemple ci uqudul muawadaat yi ki soxla woon a am dara nga jënd loola lebal ko ci ak njëg loolu moom sañ nga ko jëndee ko benn lebale ko ko ñaar mu fay la ko wax sàngam waaye daal da ngay jëndi leble yow da commerçant ngay doon ci ci anam gu mel noonu waaye doo ko jox xaalis di ko ko lebal bu ci teg dara donte yaa ngi ciy am dara boobaa la nga ciy am da nga ko am ci ak ci activité commerciale bi ngay def waaye amatoo ko ci leble ñu la ciy tegal dara ndax l'islam yaakaar naa wala fekk bañut banque ci boppam waaye leble di teg intérêt la leble yaa xam nag li ngay def banque la tudd leble teg intérêt wala tudd banque boobaa da koy tere bu fekkee ne dañoo jàpp ne intérêt bancaire riba la ba léegi bu fekkee loolu la ñuy bu fekkee loolu lañ saxal kon ni ñu koy jëfandikoo ñoom lu bari la mën naa am lu mel ne bay'ul murabaha bi ñu xam banque yi dañ koy def lu bare bari ak bay'a kese rek mooy jaay dara jaay ay mbir jënd mbir jaay ko nga xam ne rek bu dee bay'ul murabaha moom dañuy wax nangam la jënde nangam laa ci teg bénéfice léegi nag dama ko jënd lebal la ko wax wala sama nga maa fay lebal gi ak jaay gi ñoo yam bu neexee comme kii jënd ki ñëw ci banque bi ñaari amut lu xaalisu tay tay moo ko indi moo tax ñu ko ñuy wax lu lebal waaye jaay rek la mën naa itam jënd loo xam ne baykat bi da koy soxla masalan wala borom usine bi wala ku ma doon nga luyee ko mu koy jëfandikoo ca liggéeyam booba di fay ay di fay di fay weeru jot ab location nangam loola yow da ngaa jënd mbir mi lebal ko ko loola mooy li ñuy woowee ijaara ba léegi ci ci jëflante islamique mën naa tamit dem sax ci uqudu sharikaat yi lu mel ne xiraat bi ma waxoon léegi masalan institution financière bi kii liggéey mu xool liggéey bi saytu ko ba xam ne dara am na ci mu def ci xaalis bokk ci liggéey ba masalan da ko jox jox kooka di doxal liggéey ba bu amee bénéfice bi séddoo ko te nañ jubóobe su perte amee itam moom itam mu perte lam te defal loolu moom mooy xiraat bi ñu xamoon te mooy mudaaraba lañ koy gën di wax léegi ci wàllu finance islamique moom itam kon xeeti xeeti jëflante yooyu rek la sañ ñi koy wax tamit di ko di ci bind di ko jéem a def noonu lañ koy wax mais noonu lañ ko war a def am nañu ci jàmbaare lool am nañu ci diggu dóomu am na ñoo xam ne moom mi nga daanaka tuuba rek moo fa nekk yëpp xeet yëpp am na ci ñi koy def am na ci réew yoo xam ne boo demee jàmm ñi ciy dox ay jéego ngir di fexe ba jéego doxinu di ñoom am itam ñi encadré activité bancaire ndax activité boo xam ne réew mu mën a doon dañ ko encadré am ay règle dafa am ñoo xam ne mooy régulateurs yi masalan bu dee suñu réew mi mooy banque centrale BCEAO ñoom balaa kenn na def banque dañ leen di jox ñoo lay jox këyit wu lay wan buy rox sax agrément bu lay may nga def te tamit dañ leen di wan mboolem la nga bëgg a def ñu seet ko ba saytu ko doog cee ànd ñoom lépp lu jëm ci banque moo xam islamique la wala tul islamique ñoom ñoo koy saytu kenn sañu fay def banque te jaaroo ci ñoom bañ bañ accordé ko ba noppi ñoom nag ñi nga xam ne finance islamique adduna ji ñëpp dañ ko wax di ko di ko tudd di ko jëf ci dëkk yu bare bari dëkk yi dëkk tubaab yeeg dëkk jullit yi ñoom itam tàmbali nañ ci banque centrale boobu 2018 lañ ci njëkk a génne loo xam ne dañuy wane ne képp kuy def finance islamique léegi banque islamique wala microfinance islamique yoon wi mënu cee ñàkk jaar yoon woowal la ca génne nañ ci masalan lu mat ñeenti document ñaar yi ngir banque yi yeneen ñaar yi ngir microfinance document yooyu bi ci njëkk liñ ci njëkk a wax mooy képp ku waxati da ngay def finance islamique banque la wala microfinance la dañ lay imposer da ngaa war a am lu ñuy wax xëy asharaya xëy asharaya boo xam ne ñi moom banque bi ñoo koy def directeur banque bi tam du ko ëpp doole ci banque bi ndax moom ñoom ñaar ñi bokk lañ ci def ñoom duñ fa féete itam duñ fa nekk waaye day doon ñoo xam ne waxtu wu ne sañ nañu ñëw càmbar la ñuy def seet ko wax ni ñii baaxut dëppoo ak lislaam lii mooy dëppoo ak lislaam nii lañ ko sañ wax dafa nañ ko war banque centrale dafa wax ci document yooyu tamit ne banque bu mu mën a doon sëñ ta buy def finance lan sëñ ta jaay sëñ ta am dara lu muy proposé nit ñi ne da koy da koy jëflante ak ñoom te joxu ko ñee ñu seet ko ba validé ko ba noppi wane ne sañees na ko ci lislaam bu ko def bu jaarut foofa bu ko defee def na infraction boo xam ne dañ ko ci sanction sanction itam mooy lépp lu mu am ca jëflante booba dañ koy jël sarax waaye du ko jëfandikoo loolu mooy kon jàpp naa ne lu am solo la ci tàmbali wane ne dañuy tànn te itam dafa wax ne xëy asaraaya boobu ñi koy def ñi ñuy tànn dafa doon ñoo xam ne dañoo am seen xam-xam daal màcc ci wàllu fiq ak ci wàllu fiqhul muamalat te tamit dañu leen a war a jox indépendance bi bi bi bi aju yëpp nga xam ne ñoom dañuy nun ni ñu ko xalaatee rek lañ koy wax moo tax ñu ne ña moom banque ba nañ ko tànnal seen bopp bu ko directeur bi di di tànn te tamit lépp luñ wax banque bi sañ koo tey ñu ko war a jëf waaw maanaam buñ ne banque bi lii lii la ko war a sañ a defee directeur bi suñu caa teg baat buñ ne ko sañoo ko waroo ko def nii waru caa teg baat loolu mooy xëy assurance bi kon jox nañ ko daal ay ga ba nag wax ko ne ko nag wax ne banque yi ne itam du ngeen yem ci loolu da ngeen di am ku ngeen di ut ci seen con contrôle yi ngeen def ci biir da ngeen ciy dugalaale koo xam ne moom contrôle boobu kese lay def di seet ndax la comité xëy assurance ba waxoon ñi ngi koy def ci li ñuy def bis bu set wala déet buñ ko defut mu bind na defuñ ko loola muy bind tamit banque centrale la koy jox te bala mu leen koy jox da koy jox xëy assurance bi ñu seet ko xool ko ba valider ko boo ko banque centrale jotee nag ñoom bu dee wax na ne kat gaa yi kat liñ def dafa wut ak li xëy assurance bi waxoon banque centrale day fane wax ne loola la te tukkee ci xaalis lépp nañ ko génne joxe ko te tamit sax loola bu baree day fane wax nag ña fa nekkoon dañ ne sa faw ñu soppi directeur bi masalan da koy fane wax day egg sax ci fane wax ne banque bi nañ nangu agrément bi ñu ko joxoon ndax financement bi la waxoon lay def te liñ gis mooy defu ko ndax dafa bari loo xam ne mi ngi koy mi ngi koy def te dëppawut ak financement bi ni mu war a doxe kon loolu jàpp naa ne jéego bu ama am solo la boo xam ne banque centrale tàmbalee woon na ko ci 2018 beneen document boo xam ne moom dajaa wax rek li ñu sañ a def te mooy yi ma doon tudd léegi ay murabaha yi ñuy wax kalam ijaara ak mboolem aquud yi xamoon ci xalil ak risaala ak téere sax yëpp suqul maamala ak buñ ko bëggee def ci cadre banque naka lañ ko war a def masalan banque bi suy jaay daa war a jënd ba moom ba noppi doo ko sañ jaay suñ te dem moom client bi ñu ne waaw jaay naa la te fekk li ñu koy jaay moom jëndagu ko sax day jënd ba moom ko doo ko sañ jaay client yooyu yëpp ñoom ñu ngi koy wax ci seen ci seen document yooyu muy tàmbali boo xam ne jàpp naa bu am am solo la ci 2018 bu ñu demee ba 2019 itam ñu yor wàllum assurance ci zone bi moom ñu ko wax ciment ñoom itam def lu mel noonu ci secteur assurance wane ne sañeef na léegi ku bëgg a am assurance boo xam ne islamique la sañ nga ko ubbi waaye nag boo koy ubbi faaw da ngay fay assurance yëpp faaw da ngay doxee nii nii ak nii ak nii def daanaka jaar fa banque centrale jaaroon ci wàllu banque yeeg ñu ko financé ba barki démb ci mars bi ci février bii weesu ñu nekk ci wàllu bourse yi ñoom itam marché financier yi génne na ñaari note yoo xam ne bépp action bu ñu fay émettre yi wala bépp sukuk li ñuy wax sukuk te mu xaw tolloog obligation yi ñu xamoon te état yi di ko def lu bare bari léeg-léeg sañes na koo def jaaree ko ci anam du dëppoog l'islam waaye ñoom itam dañoo wax ne ku koy defati ci marché boobu document yi nga koy defee ak anam nga koy defee dafa war a fay sharia yi boo xam ne ñoo koy xool ba wax ne lii l'islam nangu na ko ba koy tànnal sa bopp te borom xam xam yàlla doy te ñay def loola ñoom ñoo koy tànn loolu day wane ne kon nangu ne lële riba la waaye nag darura la day day kon léegi war des na ko mën a xoolaat ndax kon day mel ne pexe léegi mu dina am ndax li jub tamit li moom li lépp ma wax ni amul woon mooy kon ku bëggoon ne da nga def banque islamique itam fii ci réew mi doo ko mën a def ndax banque classique ni ñu ko xamee woon yoon da koy tere jënd ak jaay moom du commerçant banque la leble xaalis la mën a sañ a def ak denc xaalis waaye sañ te jënd sañ te jaay loolu lañ ko xamee woon loolu la banque centrale waxoon ne mooy jëflante banque ci fi muy waxee loolu 2018 la doog a dugal ñaari document benn bi wane ne banque islamique la bu dee kuy def banque islamique nag moom sañ naa jëfandikoo jënd ak jaay ci anam gi anam gi anam gi te itam sañu tudd leble di ci tegante waxaale ci document yooyu ne xard la sañ a def te xard boobu xard xasan lay nekk mooy leble boo xam ne amul intérêt kon loolu li ma ci bëggoon a feeñal foofu rek mooy badil kon am na bu baax a baax léegi nag li ñuy xëy na daaneel sax mooy bu fekkee ne badil am na nag du ñu jàppee ne jëflante ci banque leble ñu tegale ci intérêt baa nga def fa sa xaalis ñu teg ci dara baa sax nga teg sa def fa sa xaalis teguñ ci dara waaye ñu ngi koy leble di ci teg dara bu ñu jàppee ne loolu riba la suñ ko jàppee dañuy laajte ay laaj yu bare bari yoo xam ne nag mooy kon suñu dëkk yii li fi nekk nii bu fekkee ne riba la moom dañu jàpp ne ci bàkkaar yu mag yi la bokk ndax riba ci bàkkaar yu mag yi la bokk ndax sëriñ bi ci mu rayu sudur bunt bi muy tuddi alkab façon fil kabaayir ñaar fukki bàkkaar la fa lim te tudd na ko fa kon bàkkaar boo xam ne bu ñuy lim ñaar fukki yi gën a mag ci nga bokk loolu moom wax dëgg yàlla mat naa xam te mat naa moy te sëñ bi foofu waxoon na fa yaakaar bi ñu koy lim wa akulu amwaali yataama war riba wa ghibatun namimatun fajtaniba noonu la ko tey itam ci xadis itam asaba al mubiqat xadis la buñ xam ne ñëpp tuddaat nañ ko ca masalan xadis boo xam dafa segg juróom-ñaari bàkkaar ne bàkkaar yi de yu dangereux lañ yoo xam ne dañuy alage wax ca wax tudd buñ ca tudd kon du doy waar la kon duñu duñu duñu du fekkee ne dañoo jàpp ne jëflante ci banque yu jëkk yi riba la kon seetaan rek mu yaatu ci suñu dëkk yi day mata day mata xoolaat rawat na nag dëkk yu mel ne suñu dëkk yi nga xam ne ay dëkk diine la masalan fu mel ne Touba dëkk yu ngay tudd ci Sénégal ñuy dëkk ay dëkk diine yooyu moom jàpp naa ne war nañu wut pexe ci lu mel noonu ndax dëkk bii liñ fiy tere bari na lool ci ay xeeti ñaawteef te jàpp naa ne am na ci yu bari yoo xam ne riba leen féete kaw ci wàllu ci wàllu mi ngoog ci wàllu bu ñuy doon kalaate bàkkaar yi riba leen jiitu jàpp naa ne kon moom itam xëy na kenn du wax nañ ci génne banque yi waaye waras naa xoolaat ni ñuy defante banque yi moom jàpp naa ne jàpp naa ne bu ñu jàppee ne jëflante bi noonu la demee moom loolu day doon loo xam ne du xaw a du xaw a mën a ñàkk a seetaat ndax din si doon bu dul loolu dina xaw a niru contradiction tuuti ci ci di bàyyi système yu mel noonu mu yaatu lool ku leen soob ci réew mi nekk ku leen soob ci dëkk bi nekk ba noppi di joxe ci anam gii ñu wax te fasuñ koy ne soppi wala boog ñun ñu seet pexe yee nga xam ne nee nañ finance islamique la bu fekkee ne mën naa am ñun bu ci bari ñun bu fekkee ne mënuñoo ñàkk banque ma loolu jàpp naa ne loolu loolu loolu loolu warta mën a warta mën a warta mën a warta mën a ñàkk te lu mën a nekk la man xam naa fii ci Sénégal réew mu dëkk boo xam dem naa fa dëkk diine la comme ni ko Touba nekkee ñoom banque yi classique dañ ko fay tere amul benn banque fam benn banque am te dëkk bu mag la léegi yaatu na lool sax ci wàllu ay nit dëkk bu mag a mag la suñu booru Fuuta yële waaye benn banque am mel ni crédit mutuel daal lañ ko mayoon mu nefa ngir baykat yeeg foron kii te ñu nga waxtu nekk mu jàppante ko dëkk bi sëriñ yi dëkk ba bokk kon loolu lépp li li may li may li ma ciy bëgg wax rek mooy lu manu lu manu la maanaam soppi doxalin wi baa boobu mu wut ay pexe yoo xam ne yeneen xeeti jëflante ci wàllu googu yoo xam ne dina dina mën a dëppoo ñun niñ ko bëggee. loolu nag man li ma ci jàpp ne moo ci xalaat ndax man damaa defe ne suñu banque yi boo ko xoolee mboolem banque yi ci biir déew bi daanaka daanaka bañ dëkk moo xam yi def islam yi loolu ko def. ñu daanaka dëkkul bi ci ay dëkk jullit lañuy jóge waaye leen dëkk yoo xam ne dëkk jullit dëkki naar dëkki tubaab dëkki dëkki dëkki dëkki yeneen africain waaye daal du banque yoo xam ne waa réew mi ñoo ko xalaat sos ko tànn seen ay seen ay comité sariya ñu nekk ci donte nag comité sariya yi ngay gis ci banque yi sariya yi ngay gis ci banque yi fi wax finance islamique ay waa réew mi lañ waa réew mi lañ ñoo xam ne dam ñun xam ci wàllu xam-xam boobu la wax dëgg yàlla waaye defe naa ne li fi ñu war a gën a góorgóorlu jëm mooy ñi nga xam ne mën nañoo taxawal li mel noonu ñu di ko taxawal ñu di ko taxawal di fexe muy ndax masalan bu doon ay nit ci dëkk bii ñu nekk Touba dañoo booloo taxawal ak banque masalan tànn ñiñ doyloo seen xam-xam ci réew mii ñu leen di waxal la fa baax lañ seen def lañ seen te def waa réew mi moom ñun ñëpp seen xel dina dal ci ne kon li may def nii sama leen nangu ndax seen diw moo xam moo bind ne jëflante bi baax ut teg ko ci ay jëflaay yu wér bu boobaa dina dalal xelu ki fay yóbbu alalam di ko fa def dina dalal xelu ko fay jëli dina dalal xelu ko fay liggéeye sax dina dalal xelu ko fay liggéeye ndax riba dafa doon loo xam ne bu ñu dooleel ci liñ ci wax ci dans ci ci ci ci yonte ma yonte ma sallallahu alayhi wa sallam xadis bi muy waxee ne yàlla rëbb na ki koy jëfandikoo ki koy lekk ak ki koy joxe ak ki koy seede ñëpp la ci dugal ñooñu daanaka mooy système bépp ko parce que ki koy lekk moom mooy ki koy lekk waaye ki ko koy jox ki ko koy jox mooy kam jaar ca moom comme intermédiaire mooy banque ba ak ka ko ko dénkoon ka ko dénkoon kooku moo joxe alalam ñu koy ñu koy def ci riba ña koy seede mënoo cee génne dafay liggéeyam ndax ñooñu bind contrat yi ñee ñoo koy contrôler ñee ñoo ko mi ngoog ñee ñoo koy def ci machine yi ñee ñoo koy enregistré ñooñu ñooy seede ko kon te ñu waxaat feneen ne ñaari bàkkaar rek ñooy bàkkaar yoo xam ne yàlla dafa wax ne déclaré nag guerre ki koy def dafay déclaré guerre yàllaa ko binantam mooy ki jëfandikoo riba te bañ cee dellu gannaaw ak ki noonoo gaay yàlla am na yàlla musal loolu kon lu tol noonu nag jàpp naa ne du fekkee ne mën a sajaan pexe moom dañ cee war daal di jëf di war daal di jëf bu boobaa nag seen moodu junj na ko léegi banque yi masalan ki nga xam ne moo yor wàllum saytu banque yi di ko réguler bi banque centrale dafa wax ne li mënta ñàkk ci capitalu banque mooy fukki milliards dix milliards réew mi benn banque romb gu fi cinquante milliards ci capital waaye boo xoolee moo tax mooy li ma waxoon léegi ne alal dafa nekk lépp nit ñoo ko fi def banque yi am na ci ñoo xam ne liñ yor ci xaalis mat na junni milliards ci alal bi fa nañu yóbbu te cinq seen capital mënut a romb cinquante milliards xam nga koo xam ne sa capital mënut cinquante milliards nga doon junni milliards nit ñi di ci liggéey kon nit ñi possibilité wu cinq dajale fukki milliards yaakaaruma ne waa réew mi ñàkk nañ ay borom waa réew mi bari na fi ñoo xam ne ñett ñeent juróom ñoo xam ne buñ dajalee def sa fukki milliards kon taxawal ñoom ay banques yu dëppoo ni ñu ko bëggee moom lu mën a nekk te su boobaa ni ma waxoon léegi moo ci nekk assurance yi ñu ci am mooy di nga am ay sharaiya boo xam ne yaa koy tànn yow ñu moom banque bi ña la doy ci xam-xam te gox ba nga ne bu dee ku nekk Touba Touba bi fees na fi dell bu dee ku nekk feneen mën nga faa fekk ñu doy ci wàllu googu ñi nga xamee ne wax dëgg yàlla ñi koy def ci réew bi tam ci wàllu googu ñu ci ñu ci naw lañ ñu ci xam lañ waaye nag le fait que banque yooyu waa réew mi moomuñ ko sosuñ ko loolu day doon léeg-léeg rëq-rëq day doon léeg-léeg gàllankoor ci doxin wi mën a ñoom dëgg-dëgg ni mu war a ñoom dëgg-dëgg dëppoog li ko lislaam ni mu war a dëppoog moom te ni ma ko waxee woon finance islamique ci niñ ko xalaatee ni ko borom xam yi xalaatee jële ko ci téere yi yii di jàngale sax moo sax gën a wér finance bu bu njëkk bi classique ndax li tax mooy finance waxoon naa ne bi ñuy judd li ko tax a judd mooy finance économique finance bu njëkk bi dañoo seetlu ne crise yu bare bari yi am ci wàllu économie moo koy waral te li tax mooy dañoo dem ba gis ne xaalis bi dematul ci économie bi en réalité dafa am lu ñuy wax tàqalikoo diggante ñaar yi parce que ki nga lebal xaalis mu teg ci intérêt te xamoo lu mu koy jëfandikoo masalan bu dee da kool dem def ko ci ay xew ba ànd ak nit ki ngeen liggéey ngeen di bokk di gañe baa nga jënd di ko jaay kon li ngay def lépp dafa dugg directement ci économie bi maanaam amut lu ñu ci mën a détourné moo waral dañuy wax ne finance islamique lii liñ jagoo mooy loolu mooy moom day financer directement l'économie maanaam financement de l'économie réelle dañuy wax day day day dugg ci biir économie finance maanaam duñ la jox loo xam ne man nga cee def lu ne te du doon luy jur njariñ du la jural njariñ yow du ko jural société bi du ko te faaw nga fay la cay fay bal ba fay la cay doon ndax garantie yi muy àndal ba nga xam ne boo koy faaw am lu la ci la ci dal kon ci wàllu googu itam dañuy gis ne moo gën a ëpp assurance moo gën a ñoŋ gën a ñoŋ googu tax na buñ génnee ci crise yu demee ma doon wax léegi mooy crise sebalance boobu noonu banque yu bari ci àdduna bi dëkk dañoo seetlu wala boobu FMI ci boppam sax moo ko njëkk a seetlu mooy Fonds monétaire international ak banque mondiale yëpp dañoo seetlu ne crise boobu crise financière la waaye banque yi mu dalu ci seen kaw mooy banque yi doon jëfandikoo système finance islamique loolu nag rapport yooyu moo waraloon dëkk yu bëree bëri daw dugg masalan France ci 2011 la njëkk a def réforme fiscale boo xam ne dañ caa dugalaale nu ñuy fiscaliser opération financière islamique nga France moom bu ñuy wax ci diine ñoom ñu wax wax finance islamique rek da nga xam ne njariñ kese lañ tëdd waaye daray bëgg lislaam ak lu xeto moom nekkalu rek Angleterre tey boo ko demee dañ ko wàññi lu ëpp juróom benn banque yoo xam ne finance islamique la ñuy dox ba ci jëmmi banque centrale ba ci boppam sax bu yàggut ci 2021 bi 2022 plutôt prévoir nañ ci seen guichet ba ñuy refinancer banque yi refinancement islamique nga xam ne ci wakaala lañ koy def loolu banque suñu réew yi ba léegi sax amagut banque centrale bi ñu am ñun amagut loolu te ne banque yi bu ñuy leb banque centrale leb bii ñu xam la leen lebale leb teg ci dara kon loolu day wane ne système la boo xam ne am na fiabilité maanaam am wér na crise boobu ñu waxoon ne tamit ñuy jëfandikoo finance islamique ñoo ci mucc loolu lu neex a dégg la ndax li ko waraloon mooy ñu daan leble ñañuy lebal banque yi di leble di leble ñañuy lebal mooy ci Amérique la yàlla tasa tàmbalee dem ba ñu doon lebal ñu xam ne fay ñii mënatuñoo fay ñoom dañ koy xam créance en souffrance ñu dajale bor yooyu yëpp titriser ko li ñuy wax titriser mooy titrisation de dette mooy def ko ay portefeuille dem jaay ko ci marché bi maanaam bourse bi nga ne damay jaay benn portefeuille de dette bor yi masalan million la waaye mu huit cent mille laa koy jaay seeni borom ñu ngi war a fay fii juróomi at gaa yi ñëw jënd ko fekk ñoom xamoon nañ ni bor yi ñu ko leb ñu ngi ci jafe-jafe wala boo xamoon nañ ne dinañ egg ci jafe-jafe ñu ngi doon fay waaye xam nañ ne doxin wi fii ak at jafe-jafe dina jàpp ndax li ci bari ci immobilier bi la demoon te immobilier bi dafa jékki-jékki daan ñu ko jëndoon ñëpp nag ñu ko fayiku ñu lañ war a fayiku mu indi crise bu métti ndax milliards yi milliards de dollars la woon crise boobu moo yaatu woon ba indi woon crise dem bi ñu xamoon ci la ñu defee woon rapport gis ne te loola jëflante boobu lislaam du ko nanguwut li tax banque islamique yi mucc gi mooy ñu mënuñu parce que bay ul dayn bay ul kaali bil kaali bi yonent bi doon tere naha allahu an bay ul kaali bil kaali loolu la waral ñoom duñ ko mën a jëfandikoo comme mënuñ caa jaay mënuñ caa jënd moo tax du leen mën a lal loola mooy liñ ci seetlu woon te kon xeet yooyu nag da cee bari loolu yoo xam ne islam tere bi ñu ko tere boo seetee ba ci biir da ngay gis ne buñ ko dee topp di ko jëfandikoo bu yàggee mooy indi spéculation yi ñuy wax ci économie mooy indi yenn crise yu metti yi mooy indi jafe-jafe yu bare bari yi dund tey jii nii ci wàllu ci wàllu ci wàllu économie te bu wee lu lépp wéyee itam yàlla mi ko tere daa am lu mu ko lu mu àndal lu mu booleeg tere bi mooy dafa wax ni yam xaqullah riba yàlla da koy maxq maxq ci wàllu alal nag mooy alal ja mooy jékki-jékki jóge fa barke jóge ca barke ba bu ca jógee alal ja mën naa sànku fii ci àdduna bu sànku te mën naa indi borom ëllëg ay jafe-jafe te yàlla yoo xam du dañ moo waral lii ñuy gis ci économie waxtu wu ne alal ji di gën a bari liggéey di gën a bari xarala yi di gën a yaatu wala nit ñi di gën a ñàkk wala boog dund gi di gën a métti nit ñi sax ñàkk ñu ne dund gi ma métti maanaam barke moo mel ne mooy xaw a ñàkk nit ñi loolu man jàpp naa ne bokk na ci li koy waral mooy jëflante bi ñuy jëflante ci économie ci wàllu finance mu jaatu nga xam dafa nekk système boo xam ne kenn mu tëbi ci ba noppi tamit ñu ngoog di doxee noo xam ne islam gërëmu ko te itam darura ji ci waxoon yaakaar nañ ne bari am na ci ndax liñ ci expliqué nii yaakaar nañ ne mën naa doon mën naa doon bari bu baax a baax bu fekkee ne waa réew mi bàyyi nañ ko xel dox itam jëm ci ndax lu bari ci réew boo wax boo boo waxam ne ñoom dañuy jàpp ne mbiri taxawal banque dafa egg ci jafe koo xam ne waa réew mënuñ waaye lii ma wax dong la demee ku am fukki milliard am ñu la ci xalaatal mën nga ko am te yaakaar naa ne loolu bari na lool ci réew mi borom mi waa réew mi ñoo xam ne diine ñor na leen te ñooñu ñoo defante banque yi li ci gën a méttiwaat léeg-léeg mooy loolu mooy waa ñii nga xam ne ñooy nekk ci diine bi ñor leen loolu di def lu ne seen lépp ci banque yi ñu wax nii lay jaar yaanam boobu te ñoom seen jëm bopp mën nañoo taxawal ay banque ci bu wér-wér te boobaa itam mu mën a doon banque yu def ko yu dox dox ñu ni ko lislaam bëggee loolu yaakaar naa mooy li ñuy jeexale di jéggul lool nag ci xëy na ñu nga bu dee am na ci lu lu ci jaarul yoon li amee lu ci jub itam ñu sant ko suñu borom jégul lool ci baat yu bari yi nga xam ne moom ñu wax xaw naa tudd ay lim tudd économie tudd finance tudd boo xam ne daal mel na ne par rapport ak jataay bi mi ngoog xaw naa xaw naa xaw naa mun demee waaye jégulu ci baat yooyu yëpp xëy na dañu sàkk woon rek mooy leeralanteeg mbokk yi jëflante banque yi buñ ko nattee ci nattukaayu sharia yi naka lañ koy jàngat naka lañ koy jë man nag du may natt ci nattukaayu sharia yi moo tax du ma jëleel atte damay wax rek li gaa ñi wax ak jëflante bi ni mu tëddee su ko defee nag bàyyi xëy na mi nga ñu nga ne waa daayira Muqaddamatul Xidma leen sant bu baax a baax itam ci taxawaay yi ñu taxaw ci weer wi ci dundal ci dundal dundal ruux yi ci weer wi dëgg yàlla ci yu mel nii nga xam ne ñun dañ koy topp di ci jariñu bu baax a baax a baax a baax di ci jariñu bu baax a baax loolu moo moo moo moo moo moo mi nga moo tax ñu amoon sawarte lool ci bokk ak bokk ak yéen jataay bi dante xam nañu xam-xam bi gàtt na lool ma tegu ko te itam li ngeen doon séntu ci ñun man yaakaar nañu lott nañ ci indi leen ko waaye nag jotaay yi ak taxawaay bu am solo bi ak yéene ji ak pas-pas bi ñu koy defee moo tax ñu amoon yéene yi itam feeñal suñu pas-pas ànd ko génn di ñaan suñu borom nangu ko sëñ bi gërëm ko si barke sëñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu